ay ay ay gars yi quinze ngeen quinze. ñoo bokkoon benn lal bu benn lal yéen a bokk lépp mooy génn bi. yaa ngi may dégg. Assane nee na mënatulaa fay. ndax euh, cër bi nga ko jox nii. léegi nag moom lool ma fay la te am na ñu bari ñoo ko mën a euh, te doo ko jox moom mii nee na kontaan na ci yow Assane euh, Mapenda nee na yàlla yàlla guddal sa fan. amiin loolu nag yàlla boo te bii. ca kaw ci kanam ci lu baax rek. ndax yow li nga wax ci Assane yow miit dinaa ko wax Assane. Assane mosul tax xam lu ma mel. day ñëw jël enveloppe bu duut seetu magam ñëw na ko ak yéeg te dama ko di man ci ay ma grand yaa ngi sa kër mën na ko waaw maa ngi mu ne ma maa ngi ñëw mais faxal teg ataay ma ne ko mu ñëw tàllatoog ñoom ñoom toog ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ba yàgg bu def enveloppe am bu baax laaj ma ko ko ñaanu. ñama grand dama lay indiloon sa addiya laa la indiloon. barke sëriñ Bamba. sa addiya laa la indiloon. bu ko neexoon loolu bu ko def. parce que jamono bi ku màgg doon ci biir boppam. dëgg la ku mu neex kenn du la yëngu. cër la. bu ko neexoon. fàtte nañu ànd woon nag dañu bëgg ko dañu bëgg bari na mais lépp moo ko fekk te kilifa la ma allah yàlla def ko fu ma ko fekk fu mu mën a doon circonstance bu mu mën a doon su ma nee tëll Assane Ndiaye dina wàcce boppam ñetti loolu cër la rek ci moom la nag ci moom la moom la parce que moom sonal naa ko trop parce que newoon naa ak ak man newoon naa ko wax rek na na baax daal lépp daal moom la